law tanazala kaana sirran wa ruuxan fi muhabbatikum taxibu wa jisman laa yufaariqukum dawaaman wa xalban min muhabbatikum yesubu salaamun rabbaani xalban wa xaaliba salaamun ala maamun almakki wa muntaxa salaamun ala ummi rasuli wa mia salaamun ala cheikh tijaani mun baxa salaamun laa ama bikum wa nuur laa jalla bikum wa yee salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu waa people 221 di leen ndokkee di leen ziara di leen ñaanal yàlla di nuyu waa adduna bi yëpp di nuyu waa Sénégal Euh, di leen déglu ci question yi incha am na solo fi may njëkkee. Mhm. Euh, ñu gis ba dégg benn jàkkaarloo boo xamante ne amoon na kii di président Macky Sall amaloon ndaje invité ñi nga xamante ni euh, ku ñu mel ni baax Dias maire Dakar ak Khalifa Sall ak ñenn ci waa Yewwi Askan Wi Sénégalais yu bëri tamit xaw andi benn polémique nekk nga moom. waaw xam nga politique moom intérêt daf koo jiitu boo ëpp politique jaamu yàlla la waaye politique bii Sénégal di politique dafa niru politique bu intérêt. Barthélémy Diaz moom mënul man na man na mënul ñàkk guy président Macky Sall ndax mair de Dakar la am na liggéeyam yu bari yoo xam ne ci côté eh, mair bi bu ci président jàppul dégg de am na loo xam lu bari état moo koy liggéey te il faut mu joxante loxo ak état pour mën a liggéey. Mm-hmm. loolu comprendre nañ ko Khalifa Sall moom dafa am problème ak justice. léegi li mu bëgg mooy lan lay dem ba waxtaan xëy na ak président ba mën a bokk ci élection yi comme ni ñu ko waxee mën naa bokk rek. Mm-hmm. kon moom kooku bokk moo ko intéressé. Mm-hmm. waaye Sénégal yi dañ leen boole woon ñoom ñoom ñu bokkoon ci yeewi askan wi Sénégal yi di leen voté ñi am doole loolu ci Sénégal yaakaaroon na ñoom dañuy battre dañuy am combat entre ñoom ak président. léegi nag ñoom ni ñuy doxalee nii dafay ragaloo yenn ndaw yi nga xam ne amoon nañu yaakaar ci ñoom waaye dara lal ko du dul intérêt te ma doon fekkoon ne politique bu jaar la. bu doon ne ñu tuut li ñuy def dëgg la même bu fekkoon ne moom du dem même bu fekkoon ne Karim Wade du dem ñoom ñëpp ñi jàpp ci ginnaaw Ousmane Sonko xëy na Ousmane ko dem waaye politique du loolu politique intérêt moo ko lan ku nekk dafay xool sa intérêt bopp. Mm-hmm. moo tax Sénégal yi xaw na nañu tiit ci loolu ànd boobu nag sëy boo xam ne man gaw ma ne euh, ànd boobu boobu yéex la ànd boo xam ne xëy na commencé woon na yàgg ci ginnaaw waaye Sénégal yi xëy na jotuñ ci xool mm-hmm. waaye du luñ mën a publier fu ñu jëm politiciens yi dañuy viser fa ñu viser mooy. dem toog dialogue waxtaan nas seeni point yoo xam ne waxtaanoon nañ ko démb comme ni ko fi Idriss Seck waxee lu yàgg maa ngi waxtaan ak président toog un rek indil ñi benn information li ñu jàpp ci Sénégalais yi ñoo yeewagul lu bari ci politiciens yi waaye politique bi politiciens yi di politique daanaka jarul yàq say nelaw waaye am na ci ñëw ñoo xam ne xëy na dinañ ci ñëw man gis naa seen politique am naa ci yaakaar loolu am na solo foofu noonu laa ñëwee ci kii nga xamante ni moo di Ousmane Sonko mu jëm benn procès. Sonko euh, mm-hmm. xam-xam le 16 boobu noonu. Mm-hmm. lan lay signifié. waaw xam nga le 16 bi euh, date ñu ñoom mën nañu ko jàpp date nii rek waaye date boo gis am na lu mu jàpp. Mm-hmm. xëy na sax loolu buñ ci taxawee du du njëriñ waaye dañu taxaw ci Ousmane Sonko entre moom ak Macky Sall. loolu mooy li ëpp important que date bi. Ousmane Sonko moom ci boppam moom dafa am lu mu doon. Ousmane Sonko biddiwam rawaxaanam ndox la Ousmane Sonko ndox la Macky Sall safara la ki lu mu man ci moytundu ko Ousmane mu def ko mooy li gën ci moom. soxnaam lu mu man ci moytundu ko Ousmane Sonko mu def ko mooy li gën ci moom. Mm. Mm. Macky ci boppam bu songee Ousmane Sonko dina ci am ay mbette gis nga procès de seize bii mbetteel bu métti métti bu bari mën na cee am. Mm. li tax ma la loolu mooy ñaan yàlla gi ci borom xam-xam yi di ñaan. te ñaan lu am important la ci dundu nit yontu moo ne istaqsiru mina naasi min du'aa xayri lak fa inna abdallah yadri ala lisaani man yustajaab lahu aw yurhamu bëri leen li ngeen dem ci nit na leen ñaanal leen ma yàlla ndax yàlla yow jaam bi xamoo ban ban làmmañ la yàlla di yërëmee ak ban la la yàlla di war na ci ñaan dama lay jox exemple so Ousmane Sonko pouvoir bi yàlla may ci nit ñi ñaan bi ñu koy ñaanal yàlla li tax mu mën a mucc ci problème yu mm-hmm. na ci xadis boo xam ne Hilbaan ibnu Saariya moo ko moo ko moo moo solo moo moo solo xadis bi eh, dégg nga de wax ci ne eh, yonent wax na ne eh, inni indallahi maktubun xaatimu nabiina dégg nga wa inna aadama la munjilu fi tiini wa sa uxbirukum bi awali amri daawatu ibrahim wa bisaaratu xiisa xawmu mu ne man man man yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaan yonentu yàlla ibrahima la yonentu nu mu toll lim indi adduna bi yonent ne ana rahmatullahi moo daatu ilayna man kaddu gu yërmande laa ñeel leen kaddu googu yonent yàlla ibrahim ñaan gi mu doon ñaan rabbana wa baas fihim rasula borom xam-xam yi dëggal nañ ne ñaan googu mooy ñaan gi tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw pour régler problème mu adduna bi kon ñaan loo am important la nit ñu bëri gouvernement bi nee xam na moytuñu ko doole ji nga xam ne am nañ ko man nañ chargé doole ju bari ci peut-être peut-être ci mbir mi waaye lu mënta xew doole doole yàlla moo ëpp. te Ousmane ko lu ci ëpp dafa am ñaan dafa am ñu koy saraxel dafa am ñoo xam ne dañuy yëkkati seen xaalis di fay ay sëriñ te sax Ousmane Sonko xamoo ngir ñi ñaanal Ousmane Sonko. te ñaan yontu jàngale waat ne arbaatun daxwaatu laa turaddu ñeenti ñaan ak nii yàlla du ko gàntal ñu ne ko yéen ñaan la mu ne eh, daawatu hajji hatta yarja daawatu ajji hatta yarja nit ku aji bu demee aji balaa mu ñëw lu mu ñaan yàlla daf koy nangu daawatu xaasi hatta yasdur koo xam ne dafay xare lu ñaan yàlla ca xare ba yàlla daf koy nangu dégg nga daawatu marid dégg nga hatta yabra ku feebar bu feebaree lu mu ñaan yàlla yàlla daf koy nangu daawatul aqili aqi daawatul aqili aqi laa ci soxloon ñaan ak diggante mbokk ak mbokk te na bi nit ñëpp ay mbokk leen léegi loolu nag moo may Ousmane Sonko nit ñi di concentré wu ñoo xam ne mosuñu xam politique mosuñu lijjanti politique tey ñu ngi toog seen saal yi ñu ngi toog seen néegi di téye seen course di tudd yàlla di ko ñaanal yàlla di ko saraxeel te moom yëgu ko ñaan yooyu nag lay amee pouvoir bu bari bari boo xam ne dëgg-dëgg fu ñu jaar ak moom rek danga gis yàlla dana ci def wari pouvoir am moo tax yàlla may ko am pouvoir bi am nii waaye na moytuñu ko te lépp lu man loo xam ne waa Pastef yi mun nañ ko ci ay saraxeel ko nañ ko saraxeel diggante fii ba 2024 lépp lu ñu mën ci yokku ñaanal ko nañ ko def fii ba 2024 lépp lu ñu mën ci jàngalu ay kaamil di ko nañ ko def ngir fii ba 2024 ndax Ousmane Sonko dara mënul ko dimbale ci jamono ji nekk ginnaaw population bi loolu ne ñaan yàlla di yeggale ko fi mu bëgg mu yegg yàlla nag comme sàmm butéel nga rek max mënul la sonal te Ousmane Sonko butéel la boo xam ne max mënul dara ci moom lu bari nit ñi mën nañ ko song ci moom waaye du antu loolu ko may da du dara loolu ñaan yàlla ak xol bu sell ak sell gi mu sell te ñaan tim dafa am important mooy ki ngay ñaanal bu sellee la nga koy ñaanal dafay gën a gaaw a nangu ndax moo tax nit ku sell dafa am important te Ousmane Sonko nit bu sell la nit bu boo ko xoolee rek ko te bu ko xool danga gis ci moom sell gu nekk ci moom macha allah d'accord hmm. loolu tax particulier nangu li nga xamante ni moo di wàllu wàllu wàllu wàllu seet hmm. tey seet bi buntu ñaan hmm. seet yan anam lañuy seetee parce que bari nay façon man bu dee man la man maa ngi seetee ci liñ naan ramd ramd seet la boo xam ne seet la bu am important seet la boo xam ne ku ci seetlu doo am gàcce ci sa àdduna ndax dafa am 16 bunt yu ci nekk fukki bunt ak juróom benn moo nekk ci ramlu mu am bunt bu ñuy tudd buntu nafs baytu nas mu am baytu banin mu am baytu mawt ak baytu makaan ak baytu razaax ak baytu marid ak baytu sultaan dégg ak baytu safar dégg ak baytu raja ak baytu ixwa ak baytu aada yii yëpp ci xeetu bunt la yoo xam ne ñu ngi ci biir ramlu baytu yii nag bu dee baytu aada la mu ngay taxaw ci diggante noonu koo xam ne dafay dem ci sëriñ pour def la lu bon nga dem ci sëriñ bu man ramlu mu lu la xoolal la gis na yow noonam lay daal ci yow lii ak lii la def ci yow lii ak lii moo koy dindi sarax bi wala sangat gi nga dem ci moom mu dindi la kon baytu boobu am na njëriñ nga dem ci baytu safar ku bëgg tukki tukki dafa am bunt dafa am yoon du heure bu la neex jóg du dëkk bu la neex dem du waxtu la neex nga fay dem bu fekkee ne seet bi dangaa dem ci buntu ramlu daan la jàngal nit ki ban bu heure lay jot ak ban dëkk la war a dem ak ban moment la fa war a yegg su ko defee la muy ut dana yomb pour mu jot ca bu fekkee bëtu yaakaar la ku la jig rek mu tas li koy waral am na nga xool ci ramlu mu seetal la ko ñu wax la ko nga am ci jàmm seen bu dee place la ngay ubbi place wala ngay ubbi wala ngay jënd kër wala ngay jënd oto wala ngay jënd leneen ak leneen yooyu yëpp li ñuy seet la te boo ko seetee ramlu boobu dana la dimbalee nga xam dëgg-dëgg lan mooy sarax yi lan mooy ñaan yi ramlu seet bu dagan la seet la boo xam ne yonentu yàlla Idris la ko yonentu la ko yàlla jox muy ramlu boo xam ne yonentu wax na ne képp koo xam ne fa moon euh, yaa ngi xatt comme yonentu yàlla Idris ni mu doon defee ay xatt muy rëdd dégg nga mu ne faqat azaba jotal nga feneen fi mun a fasaaka dégg nga de matan ka loolu mooy ramdo mooy seet boo xam ne seet bu am njëriñ la ñun moom la ñuy seetee di wax sénégalais yépp nag nañ góorgóorlu ci loolu sëy du pertaaw moo koy seet sëy du naxante moo koy seet man damay wax ne ginnaaw istixaara bi nga xam ne yonentu moo ko indi amul lu gën a rëy seet ci seetu lu lu toll ni seetu ram la ak seet bi ñoo xamul masan alfalaki mm-hmm. moom itam lu baax la ci wàllu seetu tukki moom tamit képp koo xam ne day day dañu jëflante yow xam nañ fu ñu jaar ak yow pour seet la ci sa côté rawaan ci sa côté biddiw dégg nga day almandu juum seet bu am important la waaye ñun ci tënk lu ñu ëpp lu ñuy seetee mooy mooy ramb te ramb am nañ ci yaakaar ne ramb bu seet la bu baax xam ne seet la bu baax la macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo ma ñëw ci li nga xamante ni jamono ji nag mm-hmm. yi ñoo ko dañoo sëy. ay comprimés ni ñu koy def. lenn wàllu ko dul impuissance sexuelle wàllu góor. te yàlla sunu borom dimbali la. nga am ci ay trophée. ñuy tuddee ay doom. ñuy jël seen i doom dégg la ko ca daara ja. wàllu ngóor laa bëgg nga ñu jaay ngóora lu koy indi bari na bokk na ci li nga wax am na koo xam ne dafa am rab mu koy fooyle boppam mu dem ba eh, néew kàttan am na koo xam ne dafa feebar li mel ni hémorroïde wala ndoxu siti am na koo xam ne dañ koy takk xalaat ñun nag dañ ci defar benn produit boo xam ne eh, secret na boo xam ne dafay faj nit ki ci côté eh, jàngoro yi ne ci moom li mel ni hémorroïde ndoxu siti ballottement ak yenn xeetu feebar yooyu ba pare mu am eh, ci biir secret bi loo xam ne boo koy utiliser même bu doon rab dafa téye sa nguur daf koy bàyyi bu fekkoon na tamit même da am feebar boo xam ne eh, feebar buy téye sa nguur la nga néew kàttan wala ngay gaaw a yegg yooyu yëpp sedd daf koy dindi man nag damay dal jaaykati ngóor yi nga xam ne jamono ji nekk jaay ngóor jaral na leen ñuy wax kàddu yu ñaaw jaru ko ah, jaru ko. non fi ak ku mu mënti doon xaw ma kan xaw ma nu mu tudd waaye jaru branqaa koy yentu dafa wax ne ad dunya jiifatun wa tulaabuha fa man araada jiifa falyasbiranna ala muqaalatil kilaab ala muqaalatil kilaab yontu mu ne àdduna métti la ay élève ay xaj la képp koo xam ne nag dangaa bëgg métti na nangoo jaxasoo ak dégg xaj yi bu fekkee yow jaay produit rek yor naa tax ngay tudd ay awra ci population Sénégal ñun yar bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy def ci ñun ñun dañuy jàngal yar dañuy jàngal kersa dañuy jàngal respect boo xam ne dafay dox sa diggante yow ak say morom yow ak sa mag yow ak sa rakk yow ak sa baay yow ak sa nijaay yow ak yow yow ak yow ak yow ak bëri na nit ñi kersa yoo xam ne dafay dox ci diggante nit ñi Sénégal Sénégal boobu la yàlla tabax te Sénégal boobu mooy dëkk bi gën ci àdduna bi. ndax Sénégal boo xam ne mooy dëkk boo xam ne dëkku kerse la dëkku diine la waaye dëkku ngëm-ngëm leen Sénégal euh, bu ñu melee noonu nga yow ngay jaay ngóoro rek jaral na la ku mënti doon ma tudduma tur waaye ku mënti doon rek laay wax ci ci bi laay waxee mooy ku mënti doon waroo jaay ngóoro jaral na ngir nit ñi wuyu la rek ngay tudd ay kàddu di jël yenn yoo xam ne di ko def ay ay manière yooyu jaru ko ndax loolu dafay tegtal ne fu man araada ji fa yow da nga bëgg adduna da bëgg alal mu jaral la ngay jaay sa image kon na nga muñ fala yasbiran na ala fala yasbiran na ala muxaalatati kilaab kon li yonent wax ne na nga muñ nga jaxasoo xaj yi kon yow nangul ne yow jëf ji ngay jëf nii du jëf ju baax waaye jëfu xaj la ndax adduna rek moo tax nga koy def waaye du yàlla du dara jàngale woo ndax bu doon jàngale du nii du nii la ñuy jàngalee malgré que diina amul kersa dañu war a jàngale waaye yow jàngale woo diina taxu nga jàngale sa poos moo tax ngay def yi ngay def te loolu man daa ma nit di jaay ngóora jox ci loolu ñun dañuy liggéey ngóora te amul ñoom ñi ku ñu ci gën a baax ngóora waaye jaraloon ñu ñun ñi ci wax ñaaw yooyu ku bëgg a jot suñu ngóora nga jot ko dañ ci xam ne ñun li ñu lay jaay li ñu lay jox lu am important la waaye jaraloon ñu ci wax ju ñaaw te ñun suñu ngóora su la neexee nga ñëw nga essayé jël sa ngóora gi utiliser ko ba pare nga soog a fay xaalis ñun dañuy def loolu loolu ko wóorul ngóoram bu ko def te jaraloon ñu ñuy wax ju ñaaw kon jaru ko ñun ñu ngi ciy liggéey alhamdulilah ñu ngi si sant yàlla bu baax waaye yàlla xam ne ne jarul ñu ciy wax wax ci ñaaw kon ñu ngi dénk ñëpp ne jaru ko àdduna jaru xaalis jaru ko loo fi am dafay jeex lépp loo téye dafay jaar surtout yow ndaw nga lu nekk war nga ko mën am te borom xam-xam dafa ne wal barakatu amri fi lasri sabab al maru isa aba cheyan fa yeddu fi sabab fi sabab yi wa isa faata sabab faata kulli chey dégg nga taqula ayu sabab dégg nga mu ne bar dund barke ndaw barke dund mu ngi ci xale mooy nit ki su bëggee dara ba ut lu ci ndawam bu ndawam paasee paase na lépp lu nit ut moo ngi ci sa ndaw kon nañ góorgóorlu ñun ndaw ñi ñuy def ci ñoom dara pas ñi def ci ñoom ci ay kàddu yu vulgaire man d'accord mu doon kersa la man yàlla xam ne yooyu mënu ma ko seetaan waaye ndax bu koy seetaan damay am kersa moo tax bëgguma di seetaan loolu waaw. bu dee borom àndala bu la nga wax yaa ngi dégg. taw ma borom kan laay nga xamante ne nii. li may wax daal mooy wax ji baaxut. li nga xamante ne nii moo di wàllu nopp wàllu nopp jamono ji ñu bari di ko mbubboo tamit daanaka di ko wax te mënuñu ko xamuñu ko. tey nga yor ci benn mm-hmm. benn secret ay ay ay secret lañ ci yor. Mm-hmm. damay wax ne Sénégal yi xamuñu nopp nopp mu ngi dépendre ci raw nit ki. Mm-hmm. nit dafa dépendre ci tabiya nit ki. natiiru nit ki doomu aadama ñeenti tabiya moo nekk ci moom ñeenti euh, raw xaan ñeenti tabiya moo nekk ci moom. raw bu ne am na lu mu doon am na ñoo xam ne seen raw suuf la. am ñoo xam ne seen rawxaan ngelaw la am ñoo xam ne seen rawxaan ndox la am ñoo xam ne seen rawxaan safara la ñun suñu liggéey nopp yow mi am rawxaanu ngalaw dañ lay liggéey secret boo xam ne dañ koy takk foo xam ne ngelaw moo fa nekk muy upp buy upp xelam kooku jamono bu nekk dafay nekk ci moom bu dee ki ñuy liggéey rawxaanam safara danañ liggéey nopp boo xam ne dañ koy baxal tout le temps ci gaz muy tàng fépp mu ngi tàng yow ci sa bopp sa xel lay ci moom jëkkër ju lu bëgg a bàyyi ngir la intérêt jabar ju la bëgg a bàyyi ngir lan intérêt nit ko àndal mu financé ci yow xaalis ba takk jot nga bëgg koo war ngir intérêt soo ñëwee fii danañ ne ko noobal ba bopp bi di métti te dana dellu soit ci yow waaye du ñu noob ci info du ñu noob ci caaxaan du ñu noob ci ngir xaalis noob nag lu am lu wér la dama ko wax lu bari waaye képp kuñ ci jëflanteel di nga xam ne noob lu am lu wér la nee naa man nit jógee na fii nekk bitim réew di taxawaalu ñun not ko mu wëññee ko ñëw Sénégal dellu si waat Sénégal te loolu dara may ko du dul xam ban nit ki ban rawaan moo nekk ci moom ñu defal la nopp nopp nag ay secret secret secret secret dañ ko ci def am na ñu ciy yoo xam ne yàpp lañ koy boole ko jox xaj waaye mu ngi dépendre ci rawaan nit ki lan la bu fekkee nit ki tim rawaanam ndox la dañu liggéey doo xam da koy gas di sul fu tooy wetu géej fu mel ni géej muy tooy jamono bu nekk fekk mu ngi rek da koy bëgg kon lu am lu wér la ñun dañ koy liggéey te neexuluñ ci kenn mën nañ ko jàng nañ ko xam nañ ko waaw ah. ma ñëw ci li nga xamante ne tamit jamono ji sonal nañu bëri mu di wàllu wàllu rab boo xoolee des fois soo ñu gis nit ku jékki-jékki daanu hmm. naan ay dafa malaise hmm. surtout xale yu jigéen ñi école yi mu sonal leen loolu aussi tamit ci wàllu rab école yi suñuy tabax école école du da ngay gis benn place rek nga ñëw tabax hmm. école balaa nga koy tabax li nga war a def mooy gëstu école bi ban école lan moo fa nekk dë place rab la wala ndax rab yi ñun nga amee sa kër amee ko sa bërëbu liggéeykaay amee ko sa leneen amee ko sa leneen noonu la ko rab yi amee ñoom itam rab yi dañu am seen place su bopp. Mhm. yaa ngi dëkk ci dëkk fi nga dë jënd yow am na place su rab mhm. nga dugg fa tabax fa sa kër bu nga doon liggéey ci entreprise sa liggéey taxaw tabax ba du yegg nga nekkoon moo xam directeur ni tabax ba du yegg moo xam nga tabax école. Eh, di fa jàngale ndaw ñi di ñëw di daanu rab bi di feeñu di leen attaqué. da mhm. fekk foofu nekk place rab léegi lii solution mooy ñun am nañ secret yu ci liggéey bu dee place la secret boo xam ne ci butéel lañ koy def nga gas ko sul ko ci kër ñu koy liggéeyee si secret yaasin yaasin xam nañ ne secret kër la soo ko liggéeyee gas ko dugal ko ci terrain wala kër gu ñu tabaxagul wala kër gu ñu tabax ba pare rab bu fa doon def grand place dina fa jógee bu fa dëkkoon dina fa jógee waaye rab mooy lan rab jàngale nañ ko ba sonn yow amul kuy dund ci àdduna bi te amoo raw xaan képp koo xam ne yaa ngi dund am nga rawxaan boo nekk ak yow. Mm. rawxaan boobu dafa am rawxaan ak rab. Mm. dafa am wutee waaye rab mooy loo xam nit ki daf ko dugg muy rabu seytaane wala nga takk nit euh, fekk amoon na rab bu nekk ak moom takk ko su ko defee rab boobu mer attaqué ne dina feebarloo di ñàkkloo sa liggéey ngay ñàkk xaalis ngeen di xuloo ngeen sëy sax sëy su ngeen paree di tàng wala ngay gis nit ki di fatt yooyu yëpp mooy lu koy def. rab mooy waral tamit nit di am alal di ko dajale ba dem ba yaakaar mu yàqu lu mu dugg mu yàqu mbokk yi naan dañ koo liggéey dafa nii fekk na rab mu koy yàq rab daf koy def. Hmm. rab tamit dafay def loo xam ne nit ki su demoon ba nga xam ne soxla na dara lu mu yaakaar mu tas rab bi yàq ko loolu daf koy def waaye rab boobu bu ñëwee ñun dañ koy faj. te tey fii mag ñi jaaroon di faj rab foofu lañuy jaar pour faj ko te bu buñ ko fajee lépp loolu xam ne rab mi la ko doon yaaxal bu soob yàlla incha allah taala di nga am lu mu mm. xam ne tamit dañuy am dañuy teewoo am jëkkër mm. mm. nga xam ne rajo fu nekk ñu ngi fay dem ci wàllu am ci wàllu teewoo am jëkkër te ñàkk ñàkk jëkkër gi mooy mag ñi euh, problème bi te génération bii ñëw ñu ñoo gën a am problème bii di ñëw oh, génération 2000 2000 2002 bi am nañ problème waaye ñii sax amuñu problème malgré que problème bi ngay gis ñoom beneen bi ñoo ñooy gën a am problème xam nga lu mhm. bu ñu juddoo woon xale bu juddoo waan dafa am tegtal yi daan mag ñi di def mhm. jamono gi nekk di ñi dañ ko bàyyi te tegtal yooyu dafay mucc nit ki rab mhm. ñu ne déet waaye boo nekkee xale sa mag sa papa dafay fexe lépp loo xam ne lu lay muccal la ci saytaane dana ci taxaw lépp lu lay muccal ci ci taxaw defal loo ko dem ci sëriñ mu yàlla ut ay na ko yoo xam ne wàllu saytaane bu bon bu ñëw attaqué na doo romb foo xam ne place saytaane la mu dugg la doo def li doo def li doo def laa lépp luy seytaane di duggee nit da nga def yàlla man boo ko takkee téere yooyu yàlla mën na laa dimbali doo ci yegg nit ñi nag amuñu jot di def loolu léegi mhm. da ngay judd rek ñu bàyyi la boo waxee ni nga gis sax ku man xaw ma sëriñ pour pour pour nit ñi senegal yi jàpp nañ ne sax xam sëriñ gàcce la mhm. te pourtant fii jamono ji nekk ni bëri na problème yi fi nekk sëriñ ñu koy réglé waaye bëri na problème yi fi nekk tim sëriñ moo ko kenee mhm. ndax dafa am ñuy wootoo seen bopp ne ay sëriñ la sëriñ rab nag moo waral ñu bëri war a am jëkkër duñ am jëkkër mhm. sëy yàgg yi nga xam ne sëy yoo xam ne yàggatul sëy euh, trois mois mois sëy un mois an di tas dafa fekk ne rab yu ne ci ay nit la yoo xam ne nit ñi fajuwuñu avant ñu ci dugg mhm. beneen bi mooy nit tim am na àndaale boo xam ne àndaale bu bon la lu ñu war a faj la mhm. pourquoi ñu war koo faj àndaale du nit da koy dindi mu dañ nit ki ba du ànd ak yow àndaale mooy nature nit dafa taxoo ak yow lu bon li muy def ci yow léegi nag bu fekkee rab bi dafa bon dafay fexe ba yow sa jëkkër mu tas ko moo tax sëy yu bëri di tas te loolu jigéen ñi bëri ñu koy am mooy jigéen ñi génn guddi dama koy wax seen bàyyi seen awra yi ci biti jigéen ñi génn 2 heures 14 jigéen ñi génn waxtu yoor yoor mooy diggante te heures 10 heures jigéen bi génn waxtu timis loolu mag ñi dañ ci doon xeex seen doom yi loolu moo war a su mag ñi suñu yaay suñu papa yi man noonu nekk ci sëy sëy yi di yàgg duñu fa jógee waaye sëy boo ci ci lu tax kenn mënta muñal kenn ñi léegi ñoo yor du koy kenn mënul mënul muñal kenn te ku ci demoon ci sëriñ faju ji sëriñ bu xam rab di nga sonn da nga nekk ci sa kër ba sonn góor gu am nga yaakaar ne góor gu bon la waaye ñëpp mënuñoo bon am na góor bu baax waaye nan nga def ba yegg ci góor ju baax ñu ñoom mooy feebar bi ne ci yow yàlla teggil la ko te ku ñëw ci ñun insha allahu taala dinañ boobu dañ d' accord ma ñëw ci li nga xamante ne tamit moo di wàllu cat. Hmm. cat moom daanaka téye nañu bëri sore nañu bëri tamit. yaakaar boo yaakaar mu tas. wallaay. boo liggéeyee ñu daax la fa. làmmañu janoon janoom gars yi dañoo ne xëw ak saalum saalum saalum saalum ñoom xam nañ luy xëw ak saalum saalum mm-hmm. xëy nga tabax dara dina ne xëy nga am oto ñu ne xëy diw nga def dara takk jabar wala nga def leneen ñu ne xëy diw xëw googu ñu ne kuñ ko xëwal nga yàqu xëw googu nag làmmañu janoom moo koy def nit ñi dañoo bëgg di dem xew di soñse nit ñi dañ bëgg di am oto di jënd ay kër nit ñi di leen jox xamle ay baaraam te jàmm ki ngay jàkkaarloo làmmañam gaaf na xanaa xamoo sa waajur bi la jur sa mën na laa jot mm-hmm. xanaa xamoo sa waajur bu góor na laa xanaa xamoo sa rakk sa mag ka nga gën a jegal mën na laa jot te moom xamul ne sax moom dafa am cat cat baaxul dafa sew ñu ci bëri ci àdduna tey génn nañ àdduna seen dee deewu xaaraan yi cat moo leen ko yóbbee mm-hmm. ñi nekk ci hôpital yi di feebar ñu xool la sa yaram bi gisuñu dara ci yow fekk na cat moo nekk ci yow wala rab moo nekk ci yow mm-hmm. te pourtant machine mun génne loolu kon lu ci dimbale nga dem ci ko xam seet bu baax muy seetu ramlu boo xam ne bu wér la mu seetal loolu jox la ci ay tegtal yu baax ñun dama naan dañ koy liggéey ci làmm ñu béy dañ koy liggéey ci garabu ngeeraan dañ koy def ci ay xamb di la ko jox nga koy sangoo te képp ku ko taxoo di nga raw sa ndax fii jamono ji ku mucc ci la rek raw doomu aadama boo gis am na wërsëg amul ku ñàkk wërsëg waaye ñu ci bëri seen wërsëg ñu ngi koy téye lu koy téye mooy làmm ñu jaloo muy cat yoo xam ne dafay nekk ci ñoom yàlla nañ ci yàlla musal. Euh, mhm. euh, mhm. mhm. ko jotee. incha allah rabbi boo ci fi may jeexalee nga benn a tuddee. waaw téere benn téere. bi laa bëgg nga jëm jaay leeral. waa téere bi suñu mbokk Modou Modou ñoom lañ préparé pour ñëw lii sunu maam ñoo ko daan liggéey. waa saalum saalum yi xam nañ ko ay saalum saalum dañ ko daan liggéey di ko defal forodóor yi mooy ñiy foro di dem Gambie di dugg Sénégal ñu bañ ñu jàpp leen téere bi dañ koo créé dañ ko defar ñu koy liggéeyee ci secret yaasin boole kook sagaru gumba yére boo xam ne gumba moo ko doon sol boo solee yére bi bu fekkee ba gumba gi sol yére bi nga fexe am ci morceau bi awee ko téere bi takk ko bu dee ku nekk Italie la wala nga nekk Espagne di liggéey ci été doo mënoo mën ngaa liggéey ba été jeex kenn du la jàpp képp ku ko ràngoo ku ko takk sa ndigg wala nga takk ko foo ko mën a takk na ànd ak yow bu ay tubaab doon ñëw police yi tubaab yi fu ñu mënta dem pour ñëw chercher la di la wër yàlla mun na la ci defal tawfeex ba duñ la jàpp mhm. ndax secret la boo xam ne yaasin lañ ko liggéeyee secret bu wér la képp koo xam ne yaa ngi nekk bitim réew di am problème ñi lay jàpp xam nga bitim réew dafa metti mhm. dajale sa dara jënd ko ay marchandises di jaay pour indi Sénégal ñu jàpp la dugal la ci kaso fayeeku loola benn temps de xaalis yërmande jooju ñu am ci moodu moodu yi moo tax ñi créé téere bi defal leen ko ngir secret la boo xam ne suñuy maam ay maam ati maam secret boo xam ne secret bu wér la boo xam ne képp ku ko takk yàlla dana la may ndam ci mbiru policier dina la may ndam ci mbiru douanier lii moo tax ñu koy liggéey waaye du dara lu dul dimbale suñu mbokk moodu moodu yi am la ci ñëw ku ci ci oo dee ci defal xewal incha allah taala jàppalante ca yow. Mm-hmm. incha allah am na solo mu ngi noonu comme ni ñu wax rek Cheikh Ablaye Boye. Mm-hmm. numéro téléphone yaa ngi doon affiché ci écran boo ko weer incha allah rabi dina la tegtal. Mm-hmm. Euh, sëñ bi lan ngay tàggatoo ak lan ngay ñaanal soppe yi. di di leen tàggatoo di leen ñaanal yàlla seen bi yàlla ko yàlla defal tawfiix. yàlla dem ba siiw àdduna bi di ko seetaan. yàlla may leen ci ay ndami ndami ndami ndam. wax naa sànq njëriñu ñaan bu leen xeeb ñaanu kenn ku ngeen tàllal micro na ñaan ci seen bi bu ko defee yokkute rek ngeen di am waaye du ngeen wàññeeku ndax waxtu wóor di jaaba dafa sew nit dana toll ci foo xam ne lu mu wax yàlla def ko te am na jaamu yàlla yu sell di jël seen naafile guddi yi di wirdu guddi tàmm nañ jaamu yàlla ba yàlla nekk seen lépp lu ñu wax yàlla def ko soxla sax bu ñu ko déggee mu faju mm-hmm. yëgal ne am na nit ñoo xam ne bu ñu déggee soxla ak lu soxla bëree dañ fay faju loolu xam ko kon de leen ñaanlu yàlla mm-hmm. ndaw ñi nañ di ñaanlu ndaw ñi nañ di ñaanlu ndaw ñi nañ di ñaanlu suñ ko defee seen bopp rek la ñu muccal mm-hmm. te nañ moytu dugg lépp lu ñuy dugg nañ ko gëstu pour xam ko ñu ngi guddal ñi ngi nuyu ñëpp di leen ziara di leen wax ne wa aqiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu